tey jii nag ñu ginnaaw bu nu ñaanalee xalifa général des mourides Cheikh Mouhamadul Mountakha sunu boroom sàmm ko te wéral ko te yàggal ko fi dellusiwaat na tey jataay bu nu fas yéenee amal jagleel ko soxna Mbeen Ngaabu bintu Xaadim Rasool di ko amal ci ndigalul sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu mi nga xam ne moo nekk jëwriñam ak mbooleem njaboot gi ñoom ñëpp di ko dale ci soxna aji soxna ak soxna maa ami loo ak mboolem ñi nga xam ne ñoo seq bis bi jël nuyo bi nak di ko ci turu Cheikh mohammedou Lo Ngabou mi nga xamne moy mooy ji di ñaanal tamit ña nga xam ay way dawlu lan te doonon ci njabootu soxna mbenn muy soxna maam Bousso Lo ak soxna Bintu Lo yal na tabalen aljana àjjana ay firdawsi soxna mbenn mi nu bëgg waxtane nak li tax waral waxtane moy mooy dañuy bi sa magal gi ko baxo defal te ren ji mu dëppoo fukki fan ak juroom ñaar ci wéru suwe bi waye dëppoo tamit ak fukki fan ak juroom ñaar ci wéru digg wi ñu nekk digg tabaski bis bobu nak mom ci la gané won aduna lolo tax nak ñu koy soxna mbenn nak mi ngi bok ci askan wi nga xamné ne bu nu xamé kan moy wajuro mu góor muy cheikhul khadim mi nga xamné ne eh, ko xamando aduna bépp wajuro mu jigen mi ngi tuddu soxna fati khudja di doomi serigne mbacke kadior serigne mbacke kadior mo Maam Mor Anta Sali kon li ngay dégg ci biir wax ji moy soxna mbenn sëriñ bi waajuram la waaye nijaayam la noonu ko woykat bi waxoon ne daamay baayam di nijaayam soxna mbenn gaabu boo ko bëggee misaal ci càllalaam nan la bokk ak sëriñ bi ni sëriñ Fallu mel ci sëriñ Tuubaa rek ni la ci mel te moom mel moom dong la waajuram sant Mbàkke ci mboolem ñi sëriñ bi yaroon di mbokkam euh, sëriñ Mbàkke Kajoor moom moom la Maam Mor Anta woon sëñ bi ba joxon ko ko wax ko ne ko Wah, sa baye wax nan ne seigne touba bu san wax baye seigne Mbàkke kadior la ci djublu bu san wax sama serigne nang sin Maam ant Anta Sali la ci djublu wax nan ne seigne Mbàkke kadior daana wax ne xawma mom am na bu mat baye waye man am dom ju mat dom xam nga ku seigne touba di sa dom am nga dom. momit mat na baay ndax bi fi serigne bi di genn di dem sunu borom dané ko na nga diisoog borom Mbàkke kadior na nga diisoog sëñ Mbàkke motax tax bi daan wax naa ko man yàlla moo ma digal ma diisoog yow sëñ Mbàkke ginnaaw bu nga xamee ne soxna bi soxna si gane na àdduna di bisu boo xamante ni njaareem leen jóge fukki fan ak juróom-ñaar wax na ne bi ñu demee wax ko sëriñ bi sëriñ bi dana leen kañ la moomee kañ la bis bi ñu ne ko yaakaar naa ne samedi la de sëriñ bi ne leen déedéet soxna bi leen la ajjuma la bis ba ajjuma la Euh, loola nag doonaat xar baax lool ci ci bis bi ndax ren jii tamit ajjuma moo doonawaat bis bi fukki fan ak juróom-ñaar ci mu tëppwaat ak ajjuma soxna Mbène mi ngi gane àdduna 1922 22 boobu tamit mu dellusiwaat di 2022 muy ab xarnu muy téeméeri at kon màggal gi téeméeri atu ren la boole ko bi mu ganee àdduna yi tamit sëriñ bi wax euh, lu yéeme ndax soxna Mbène mi 1922 euh, Euh, ci la sëriñ bi woote màggal gi mu woote bu fés a fés lu ko jiitu 1918 waxoon na ne sëñ bi digle woon na ko ba ca at yee ca toppaat waaye 1922 ci la sëñ bi nag waxee nag euh, mu baasarata ne daf na ñëpp ñëw di ko santale yàlla ci bis bi kon soxna Mbène ci bisub sant yàlla ci la gane àdduna ci atum sant yàlla muy bis bi sëriñ bi gën a fonk yàlla dogal bi mu gane àdduna sëriñ bi wax Cheikh Ibra ne ko lépp loo xamante ni luñ fay yëwanal la ci teraanga na ngeen ko def wax nañ ne Cheikh Ibra mboolem luy teraanga giléem ak lépp def na ko sëriñ bi yabal lu toll ci juróom-ñaari Muhammadu ne leen nan dem wutali ko tur te bu nu demee bu nu ko tuddee nan ko tuddee Aysatu Aysa ñu bari nag wax nañ nag ne sëriñ bi mu ngi ko tuddee Aysa di doomi Seydina Abubakar di soxna si yonante bi umul moominiina yàlla dogal na sëriñ bi sax daf cee leeral ndax sëriñ bi dafa wax ne tudde leen ko soppeeb sama soppe ba mooy soppeeb Seydina Aboubacar waaye soppeeb sa yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu tudde ko ko eh, ginnaaw boobu nga xam ne nag toll na ci dal jàng ci la ko nijaayam jàngale ku nuy wax sëñ Mbàkke soxna sëñ Mbàkke soxna aan sëñ Mbàkke moom mook waajuru soxna mbenn gaa bu ñoo bokk lépp ñoo bokk sëñ Ibra ñoo bokkaat soxna Faati moo ko jàngal gis nga sëñ Touba ni nga xamee ne lépp lislaam du ko jëggaani ci benn kër lépp ci këram lay amee lépp ci këram sëñ Saliou mi da koy wax day wax ne bu njëkk bu ñu daan jàng bu njëkk ci réew mi boo bëggee jàng naxu yaa ngi koy jàng ji fële boo bëggee jàng xarut uh, uh, nga jàng ko ci beneen dëkk Saalum boo bëggee jàng nangam nga jàng ko ci kokki sëñ Saliou toog ba ci yàgg mu ne man de maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ndax sama daara jii de kenn nit ki rek kiy jàngale mën naa jàngale fànn yooyu yépp te bu njëkk loo soxla mbosok fu nekk ngay dem te dëkk yooyu sore woon la def kon sëñ Touba loolu la ko yàlla defal euh, soxna si bi mu jàngee ba noppit xam ngeen ne jigéen bu jàngee am na leneen lu koy xaaraat mooy dem kër jaamu ji yàlla ginnaaw bi ci la ko sëriñ du mustafaa joxe sëñ Mbay Jaxate doy na sëkk rek ñu ne la sëñ Mbay Jaxate yore woon na soxna mbenn gaaw bu nga xam dara jaam suñ sëñ Mbay Jaxate maj soob la woon doon koo xamante nii nitu tasuuf la woon waaye nit ku ragaloon yàlla la woon boo dégloo ci ay woyam sax ci ngay xame ne ci ngay xame dëgg-dëgg dégg naa ñu ne sëriñ son yi bu nee na bala maa gëm ne sëñ Bay Jaxate kenn ëppale na ko yomal xayaam rek laa koy gëmee kenn ëppale na ko ci sëñ Touba te loolu li ci gën a tee leerati sëñ Modou Moustapha mii daf ko sëñ Bay Jaxate sëñ da ko boole woon ak euh, sëñ Modou Moustapha maanaam ni ba sëñ Modou Moustapha bi mu wàcc liggéey ci ci tànk sëñ Bay Jaxate la wàcce liggéey loolu kon alaaxa bu leer la moo tax sëñ Mbay Jaxate gis nga woy yi muy woy sëñ Moodu Musaa naa ko su ma daan bañit nangu naa nangoo ma war ndax Babacar moo njëkk a gëm rasul la woye wala falam boobu nga xam ne daana ku ko déglu di ci xame bu baree bari ware waaw mun naa ko nangul te jël nangoo la war ndax ak woy yu bari yu mu ko waxaat waaye li ci am solo mooy eh, sëñ Mbay Jaxate mu nekk fa ba mu fa nekkee tamit nekk fa nit koo xamante ni yóbbaale foofu juddu yóbbaale fa daraja lu mu fa yóbbaale jikko jikko jikko joju nang mi ngi ko nampé ci ñaari weeni ngor yoyu la ko nampé muy digënté mbacké kadior ak serigne Touba té lolu ben la rek ci ñaari ween yoyu nga xamné ne la bimu démé nek fa momi tamit ko kuy wut lu baax la ndax tuba, Touba dafa waxon soxna ummi wajuram né ko ba soxna ummi mi ngi koy jangal ab liggéeyub jigen soxna si e, wajuru soxna ummi né ko mom da am nañu koy liggéeyal mu ne ko jigen nan ko jangal ab liggéeyal bu ëllëgee bu gisee kum ko liggéeyal mu liggéey bu gisul ku ko liggéey mu liggéeyal boppam waajuram tamit bi muy dikk fii ci ngaabu sëriñ bi yabal ko ngaabu bi muy dikk ngaabu sëriñ bi da ko wax ne ko lii dama la koy jox boo demee nga dem di fa liggéey liggéey jigéen xaalis bi ma lay jox na mayuma la ko saraxuma la ko def dama la koo jox boo liggéeyee ba tonaw nga delloo si ko bu ëllëgee ko soxla ma jox la ko soxna si bi mu dikkee di cuub ak yo ak yooyu yépp nga xam ne da koy wut ñu koy defal mu koy jël di ko wecceeku waat ak sàmm yar ak jur xam nga ne ku nekk xam na ne jigi liggéeyub jigéen loolu la koo xam doo génn sa kër waaye loolu lépp li ci sëriñ bi jublu woon mooy muy jaamu yàlla ak di liggéey ndax wolof yi dañuy wax ne euh, li gën a lew ci lu ñuy lekk li aw suuf di lekk mooy li nga liggéey te mu saw ñaq am na ñu wax ne wolof yi dañuy wax ne lu lewut du law te biir bu ci regg ràgg di nga gis ñaare nga gis nit mu yor alal ju bari nga jikki-jikki génn rek eh, ñu ne la benn feebar bu gaaw ko rey wala ñu ne la otoom dafa këpp wala dara yooyu yépp jeexitalam mooy ñàkk a lekk lu lew dëgg la dogal a nga ci waaye lu lewut du law te biir bu ci regg da nga ràgg te ku ko xool gis ko da ngay xool rek foofu benn taxaw bu ma ci wax rek xoolal tey lu mel nii tey boo demoon ba ci ginnaaw casamance wala dëkk yu xawoon boo demoon ndox mi nii naan dañuy as ci yi asa as ba am lu nu mën a naan ndox mu xonq cur ndox mu ñuul kukk wala xam ndox moo xamante ni buñ koy naan yow mi nga sa yow mi dëkk fii nga xam ne yaa nga dëkk almadi yaa ngay dem di wuti ndox moo xam ne mu selleek ndox moo xam ne ko filtreek ni mel te kii ndox mi muy naan buñ ko la ko joxoon wala aw fas aw fas sax dangay lànk ne du ko naan yàlla day dogal yow mi koy naan xoolal ka nekk fee dara benn feebar du ko dal te ñoo ñu di naan ndox mu baax moom yaa ngi gis bis mu nekk ñu ngi yori tension ñu ngi yor ay jabet ñu ngi yor feebar yoo xamante ni daanaka mënul ko nga gis yàlla ni muy defee ikk ma ndox mee nga xam ne yow dan na woon doo ko naan ndax waaye yàlla li mu lay defal ci wér may la kii bu baax léegi bu ko defee loolu benn kii la soxna mbenn noonu la nekk woon foofu ba yàlla dogal bi fa sëñ mbay jaxate jóge ñu indi ko ci kër sëñ ibrahima loo Euh, moom tamit mook sëñ Masamba mi ñoo bokk waajur doon koo xamante moom it ci mbokkam sëriñ bi rek lay dellu siwaat kon soxna Mbène fu mu dugg rek daanaka ci mbokk sëriñ bi lay dellu ku nekk xam na ne sëñ Mbay Jaxate yi tamit sañ kii Jaxate mooy waajuram sëñ Xaali Jaxate bay Xaadi mooy waajuram kon ku nekk xamoon na Baye Xaadi ak sëñ Tuubaa nga xam ne jàngal na ko ay téere sax am na neneen jàngal na ko benn bi ci desaat mooy soxna Mbène yàlla dogal nag bi mu fa ñëwee tamit foofa fa la amee njabootam gii fi nekk muy soxna maam Bousso Lo soxna Bintu Lo sëñ Modou Ngaabu ak soxna maam Ami Lo di caatam soxna si waaye loolu lépp li nga ciy déggee mooy soxna si ku nangu woon liggéey la nangoo jaamu yàlla yàlla dogal tamit mu ton koo xam ne dafa teel a génn lool bi muy dem ndakaaru di fa dem ak a dem ay fu mel ni mbuur di dem fu mel ni jiwaalo di dem fu mel ni taset di dem fu mel ni cilmaxa booba génn sa xewagut ndax soxna si mi ngi fi génn 1981 wala 82 jamono boobu ku ko génn àdduna te fekk na li nga waroon a def ci tournée def nga ko bokk na ci euh, nit ñi dañ leen a a fekk fi nu nekk waaye doo nekk fi nga nekk rek ni ñëpp fi lan may fekk bu ko defee doomi Sëñ Tuubaa fa mu nekk bu bëggee ñëpp fekk ko fa loolu jàpp naa ne ñu néew ko fay fekk wala kenn du ko fekk waaw soxna benn daan dem ci dëkk yooyu ba ci daayira étudiant bi ñuy wax sën murit wala étudiant murit soxna si bis bu nek dañ fa daan ñëw ya mi yaakaar naa ne ndeysaan nante won nak soxna si lool ba tay ji loola wax de yalla ñom ñing koy doxal boo demee turandoo soxna ben yaang fa bari ba bëgg de soxna si yalla dogal bu mu fi laata jóge bàyyi na fa ay daara yo xamanteni lu mat juroom ñaari daara yi tarbiya daara yooyu daf leen daan wax ne leen bu liggey ba liggey bi bari mu ne leen li ma leen di doon defloo de bu leen defoon dama bëgg xaaliss wala dajala alal dama bëgg ëllëg yamal xiyam ma doon seen seere ci kanamu touba looloo nag wax dëgg yàlla doyoon na sëkk soxna si tamit yoroon ay jikko yu rafet yoo xamante ni xam nga àdduna moom ñaar yi bu la ko yàlla séddee bu sa juddu rafetee yàlla may la euh, taar bu rafet leneen li ci des yaa koy wutal sa bopp mooy jikko ju rafet jikko moom kenn du ko judduwaale dañuy wax ne jikko kenn du ko judduwaale jikko moom yaa koy defar ba mu mel ne soxna mbenn yàlla defaloon bokkoon na ci doomi sëñ Touba yi gën a nuru sëñ Touba nag sëñ Fallou Mbacke wax na ko nee bu ko masaana gi tax ak a nuru baayam ak a nuru baayam ak a nuru baayam ci xalxan waxul xan nuru na baayam ci bind waaye nuru na ko ci jikko benn bi ci desaati tamit mooy ku déggoo woon ak i mbokkam la ndax nit yi tamit mënoo wax li li mu baax li lépp te waxoo ay mbokkam fan lañ ko tegoon soxna Mbène ñi mbokkaloon sëñ Touba sëñ mu Moussa moo ko yóbbu sëñ Basirou ci ndigalul sëñ Fallou moo ko yóbbu fi li nga xam ne moo di e, daaruloo e, sëñ Fallou tamit moo yebal sëñ Modou Lo Ngaabu mi wax nañ ne moom daanaka noonu la demee bi mu tolloo ci jàng sëñ Fallou moo bind ab leetar jox ko sëñ Basirou ne ko sunu doomu jigéen boobu jël ko nga yóbbu ko ca sëriñ son yi bu mu jàng fa alxuraan kon moom itamit génnut yi sëriñ bi sëñ Abdou Lahad mi tudde na sëñ soxna mbenn ñaari doom ñaar tudde na ko mu gaañu mu tuddewaat ko daanaka bari na ñu nekk ci biir këram ñoo xamante ni loolu ñuy wax naa xaw ma njëkkee la xaw ma wàcce loolu daanaka moo ko féete woon kër sëñ Abdou sëñ Abdou Lahad daa mujjoon ci waa këram ne am na ca ñu bari ñoo xamante nii ne leen waxoon na leen bu leen soxna Mbène gërëmee rek gërëm naa leen yàlla gërëm na leen yonante bi sëñ tubaa gërëm na leen loola nag moo feeñoon ci diggante ma ndax soxna Mbène dafa doonoon jigéen waaye da wax ne daanaka cërub góor la amoon xam naa sëñ Tuubaa moo ko defoon lool ndax néeg ndeyam bi mu bokk mel na moom rek moo ci bokk ci sëriñ bi loola tax na yàlla defal ko ca tawféex jooju yàlla dogali tamit mu teeloon a xam responsabilité mësul wiccax loxo mukk ne li ma bëggoon a defal sëñ Tuubaa de moo doon góor waaye dafa doon bu mosaan a jóge dakaar da nga naa soxna si maanaam ci bitigu eh, naari libaay yi lay dem lu nekk da koy xotti li muy solal boppam. lol lay sol ñim bokkal sëñ Touba wa bar saqi dongay daara yi ñoom ñëpp benn bis mu dem fa di jënd di gëna alaaji Abdou Assis mi fekk ko fa da naka sëñ Abdou Assis dafa melni kuy daan nako ajil, ajil len ko ñukoy ñukoy ba boko xamul sa dana da de talib murit bu fekk soxna si fi la mo daanu di ko jëndal li waye lol lepp da doon wane rek soxna si bax gi mbaxon ak nim mu mbokam wa wa kër sëñ Mahmadan Tobbe gi wa kër sëñ Massamba da naka ñepp ko tudde doom sëñ Mahmadan tudde na ko doom sëñ Abdou Salaam tudde na ko doom sëñ du Baaxit tudde na ko doom sëñ Modou Faati Xari tudde na ko sëñ Mamour mii nekk xalifa bi tudde na ko ñoom ñoo ñépp noonu lañ meloon ci moom ba uxuma la tudde waaye dañ koy tudde ba noppi jël seeni njaboot jox leen mu yaral leen ko boo demee ci kër sëñ tubaa gi sëñ Abdou Lahat wax naa ne ñaari doom sëñ Abdou Xaadir tudde na ko doom sëñ Abdou Xaadir daanaka moom i da ko ba ci soxna si li mujj a def li ñuy wax génne nii seen seex bas mi la ko mujj a def la mujj génne taawu ci ab liir ñu tudd ko tudde ko loolu nag dafa mel ni jeexital na ci sëñ Cheikh bas ndax ku nekk xool na gis na fi ko yàlla teg te loolu mel na ni doomi sëñ Touba jur la doomi sëñ Touba leewu la ñu wutal la aw tur te soxna si moom la mujj génne loolu dafa mel ni jeexital na ci moom loolu tamit euh, tax na sëñ Abibu mi nga xam ne waajur la ci soxna si tudde woon na ko doom boo demee waa kër Mamor Jaara sëñ Abdou Latif tudde na ko doom sëñ Cheikh Penda tudde na ko doom sëñ ñi eh, ci bare bare daal tudde nañ ko ay njaboot yoo xamante ni nga dem kër sëñ Mandumbe sëñ bu tudde na ko doom sëñ Abdourahman tudde na ko doom yooyu yëpp nag day wane rek nit ki te damay wax ne soxna benn bokk na ci doomi sëñ Tuubaa ëpp turandoo ci ci kii te 1982 la fi jóge wala 83 81 kooku nag mu demee ba ay turandoom bari noonu ba nga xam ne sëñ Saaliw mi mësul am ay tool yu mu ruuj wala yu muy sanc te waxut soxna mbenn demal ñaanal ma fa ba soxna si léemu ko mu soog faa nangoo def benn doomu gerte wala benn doomu dugub am na suur benn xale bu ndaw boo xamante ni dañ ko tudd soxna benn yàggut ci xalifa xalif xilaaf ak sëñ Saaliw gu mujj gi bi mu dikkee ne ko ñaanal ma sëñ bi ne ko noo tudd mu ne ko soxna mbenn gaabu leen moom mu ne ko dee yow ko yaa ma war a ñaanal kun tudde soxna mbenn kay yaa may ñaanal xale bi nee na sëñ Saaliw tàllal mu ñaanal loolu lépp xam nga sëñ Saaliw ni mu ni ko yàlla binde woon ci maanaam mën a jokk mbokk mën a def lu rafet loo xamante ni yow ci sa bopp boo xamul sa bopp sax da naa dara nga te fekk na sëñ Saliou la yàlla binde woon noonu waaye loolu lépp day wane daraje yi ki ñu ko tuddee rek la ko la doon xool ci moom yàlla dogal euh, soxna si tamit noon moo waxoon bi mu yàlla dogalee ñu jigéen ñi mu bokkal sëñ Tuubaa noonu la meloon soxna moomi soxna moom moomi ak soxna may mi moom da wax ne dinañ leen daan jaawale ñoo bokkoon nu nuy muuroo ñoo bokkoon nu nuy koloo yooyu yëpp am na suur benn xale dikk soxna soxna soxla soxna may ñëw ci soxna mbenn te xale boobu kat soxna si la àndal dikk jaawale ko ke euh, loolu day wane rek ñoom euh, nin melawoon soxna mbenn nag du woon doomi Sëñ Tuubaa bokkul woon ci ñi mag ndax ci caat yi la bokk ndax moom soxna ami seex la magoon ak ku ñuy wax soxna may mii di borom laylatu xadr ñaam ñaar rek la magoon waaye aw turam nag teel a siiw a ba nga xam ne damay wax ne bokk na ci ñi ëpp ay turandoo ci doomi Sëñ Tuubaa mu soxna moomi mii ak ñeneen sax waaye nag yenn saa yi nga waxee noo xam ne sa xel damay wax ne ñoom ñaar li ma xalaat ak li ma gis ndax man foto sëñ Touba rek laa gis ñoom it seeni i soxlaa gën a gis waaye seeni i boo ko toogoon ñoo foto sëñ Touba yi ni nuroo danga naa kiimaan la soxna moom yi soxna benn gàmm ni nuroo sëñ Touba ci xëyba nuru ko ci ma ci melo yëpp ci jikko ak ci xalxan yàlla boole woon leen nag gis nga bi soxna mbenn wàccee liggéey soxna moom yi daa ñëw toog ci kër gi nga xam ne yow boo dikkee ci kër gi li ngay xam mooy gisoo fi soxna mbenn waaye soxna moomee fi bàyyi ñëpp soxna moom moom yàlla da ko binde woon moom it ni sëñ Basiiru mel islaaxu saatil bayin wax nañ ne bu ma saan di dem ci sëñ Abdou Lahad day bind loxo bi ba mu fees dell yenn saa yi mu xool loxo bi daan na ko diw sàngam dama war nañ koo dimbali diw sàngam dama war nañ ko wutal fu mu jàngale diw sàngam nga xam ne sëñ Abdou Lahad saa bu ma saan a gis soxna moom mi day wax ne soxna moom it bu ñëwee moom ittey boppam indiwlu ko ittey jàmbur a ko indi loolu nag mooy jikkoy doomi sëñ Tuubaa yi yore woon gis nga soxna moom mi te waxtaan wi sax boo gisee eh, man toujours doomi sëñ Tuubaa toujours damay wax ne man aaya alxuraan bi laa leen di lëkkaleel laa nu bay bayna ahadin min rusuli mooy awma ci xaj uma ci seen ñoom ñëpp ñoo yem ci man benn daraja ndax ñoom kenn lan ci kenn lan bàyyi ko wax dëgg yàlla ñoom ñëpp boo xoolee li sëriñ bi bëggoon ci ñoom ñoom ñëpp dañ koo làmboo tey boo doon waxtaane te tuddoo wenn tur ki may dégg danaa ki soxna moomi lay wax wala mu ne ma soxna may lay wax wala mu ne soxna benn gaabu lay wax loola na ngay bëgg li sëñ Tuubaa bëggoon ci ñoom da koo am ci ñoom Euh, xam naa bu ko defee euh, waxtaan wi dañ koy tënk foofu rek bu ko defee soxna si ku mënoon a yar la gis nga li ñuy wax saa bàjjan bu masaane indi ay xale ñu mag ñi da leen di seexaleek ñu ndaw ñi day wax na la yow mii xale bii laa la jox li ngay wut ci kër gi daanaka rek ci xale bi noo ko teral noonu la sa teraanga di am noo ko def rek noonu la la la li ngay wut ci kër gi euh, wut kële xale bi yaa koy léet ya koy fóotal day melni sa dom joo jur nga xamne ne lu jafela la xam nga bokk ak nit ay daara ak nangam man nga am raciste sax ndax yeen da ngeen fa tassé bokku len ci fami bokku len ci xet waaye ñu bolé len ba ngeen melni ñu bokk ay ndey ak baye ki gënal la sa rak sa lolou jikko ju rafet la soxna si bu masan di kërëm masana jot ben togg mo fa daan am moy tibatel bopam bu dee xelli café mo daan xellil bopam wax nan ne daana xelli café wala muy tibaté ba loxom bi docteur yi mas nañ ko ne ko xanaa dara dala cee dal waaye bi ñu xoolee dañ ne tibbaate bu bari bu mu daan def la soxna si nag noonu la fi defoon ñu koy fàttaliku nag muy màggal goo xamante nii ñu ngi ko jàpp ajjuma ji ni ma ko waxe woon mu jóge fi mu 1981 foofu it kiimaan am na fi soxna si bi mu fi jógee gasal nañ ko ñaari barab xam nga booba doomi Sëñ Tuubaa ju fi bàyyi koo yombul soxna si tamit marqué woon àdduna saa bu demee ban koy bëgg a denc ci barab taalibe yi daw dugg ci barab sëñ Abdou Lahad daal di moo ca def pexe ne kun ci duggati rek nan ko ci dencaale ku duggati ci biir rek loolu nag lim lay fàttali mooy ba fi yonante bi salaahu salaam jógee Seydina al Omar téye jaaseem Aliou nekk fële ku nekk naa ku ma wax yonante bi jóge na fi ma rey la da ngay xool rek loolu rek nga koy méngaleel nit ñi bëgg gin ko bëggoon ak jàpp na it doomi sëñ Tuubaa booba doomi suñ Tuubaa gën na fee jóge gëj na fee jóge loolu yàlla def na ko ci mu doonoon nag koo xamante ni wax dëgg yàlla bàyyi na fi jeexit. jeexit ji fi bàyyi mooy doomam ji di sëñ mootloo Lo Ngaabu saa boo ko tuddee ñëpp rek seen xel yëkkatiku màggalam ji bokk na ci màggal yi gën a ràññeeku ci dëkk bi te du màggal gu mag yàggul bi ñu ko sosee yàggul waaye màggal yi gën a ràññeeku lu ko gën a ràññee mooy la fay bàyyikoo di jëm ci nit ñi mooy discours ba fay jóge te ñaar lam noo ne doomu aadama da koy soxla mooy bernde ruu ak bernde bakkan bernde bakkan nag mooy discours ba fa sëñ bii def bu nu demee ba julli takkusaan ci la koy def bu ko defee màggal gi bu nu jullee bu nu xëyee jàng alxuraan ak salaatu ala nabi ak bernde bu nu jullee takkusaan mu def discours bu noppee daanaka ñu ci bari ci mbooloo mi yewee ko ñu wéyal programme bi loolu la sëñ bi nag mu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ci bis bi ak at yi nga xam ne dafa xawoon a taxaw amut waaye sëñ mun taxaa joxaat ko ndigal ne ko nan ko def nan ko daan defale bokk na ci màggal yi nga xamante ne amut CRD amut CDD amut cérémonie amut dara yooyu la am loolu it wax di yàlla ba léegi murit yi dangay gis ne loolu ni ñu koy yëgee ni ñu koy wuysee ndax sëriñ bi doo gis daanaka ay leetar yu bari sax waaye wuysi gi ko nit ñi wuysi ak heure boobu moo lay yëgal ne la ndegate nit ñi am na lu ñu bëgg te it ku wootee nit ñi ci yàlla ak yonante bi war nga leen a wax yàlla lan la digle war nga leen a wax yàlla lan la tere war ngaa wax yonante bi mu yabaloon ci ñun muy sunub yonante lan la bëggoon ci ñun ak lan la lan la ñu yéene woon sëñ Tuubaa mi sunu sëriñ ban objectif ban lan la bëggoon ci murit yi doon ko lolu faaw ñu jangalat ko mouride lolu nak responsabilité bu wul ñi fi nek sëti seigne Touba ak ñi ni tuddé cheikh yi ñoo yoré responsabilité bi euh, kon dal ñi ngi taxaw fi di sante bu baax baax Abdou Baaxe mi nekkon ci euh, caméra bi ak seigne Cheikh Sambo mi yoré won technique bi ak montage bi ndjay Mamadou Ndiaye ak ñi nga xam ne lañ àndaloon ñu ngi jéggalu lu dëng ci waxtaan wala luñ ci juum ngi koy wa rahmatullahi wa